nelaw bu bu bu be pare so joge sa moso si dañoo lëm sa yax yi dañoo du dañoo tasaaru dañoo tasaaru so soo jógee nga def lima def ni yeb dañoo de dañoo wa seen place sa sa sa sa yi dellu place sa moso si dan di nga gis so joge pour dox pour dem sangu ji rek yepa yepa defa anda so loolu la am na am na yeneen yoo xam ne itam mun nga koo def waaye li ma wonee noonu lu baax lay itam waaye yoga bi gis naa daal dafa baax trop képp ku koy def même booy def yeneen exercice waaye yoga dafa utee ak moom parce que yoga bi yaa ngi xëcca sa sa joints yi te joints yooyu da ngay xalaat yow sin sa yaay bu mu la juree bu mu la doon dàmpa bu nga nekkee lii yow kañ nga gëj a dàmpu kon nag nga xam ne yoga bi tam jël na place boobu parce que nu ngay stretché di def ay ay kii mouvement yi nii daf lay dimbale ci sa joints yi daf lay dimbale sa gannaaw bi sa ndigga yi sa tànka yëpp daf la dee dimbale da ngay gis yeneen méttit yi ngay jàmbat doo ko jàmbat te dama doon dama nekk di may ñi ñi courage ku nga xam ne yaa ngi toog te nekkuloo di def exercice na nga jóg nga koy def parce que dafa am solo trop bu dee da nga high blood ni boy def ay exercice ni ak yoga ni daf la dee dimbalé parce que da nga yiss lu bëre doo ko dem sa di dem hôpital di dem complain wala di dem di check budé da nga am docteur bu nga xamné mo lay gis dang koy dimbalé mom tamit parce que mom tamit daf ci bugga ngay def ay exercise pour dimbalé sa bop exercise bi daf lay dimbalé lu bëre et pare xaliss bu ngay jëndee di dem Spain boy def exercise daf lay dimbalé té ñun fi dinaa ne sérul 125 lañuy def budé membership card ñu koy payee 25 dollars waaye loolu yëpp ñu ngi bëgg a pour ñu ñu mun a ñu xëcc ñi ñu mun a ñëw dem yoga ñu ñëw exercise waaye maa ngi ñaan suma bépp mbooloo jigéen ak góor yi yëpp ndax ku nekk jóg di yëngatu dafa am solo torop daf la dee dimbale ci sa gu yaram même bu fekkee sax da nga am yaram sax waaye mu ngi lay dimbale ci sa xel da ngay gis lu bëre complain ni bëre ay feebar yi bëre doo ko jàmbat waaw bu ñu ñi di jàmbat parce que yaram booy toog benn place day jàpp waaye booy jóg di yëngal sa yaram rek ngay ñaxa li moo ngay ñaxa yaa ngay faj sa bopp parce que mun ngaa dem egg kër ga nga lekka lu la neex nga tëdda relax waaye maa ngi ñaan jigéen ñi yëpp nañ jóg ku nekk nga wàññi lu nga xam ne yaa ngi ko doon lekka lu nga xam ne faat la nga wàññi ko ci sa dunda na nga lekka lu nga xam ne dina la dimbale bul gis lekka bu neex rek nga dem ci ba mu ëpp da ngay wàññi sa lekka maa ngi ñaan ñëpp nag nañ waaw euh, Ramatulaay yoga comme ni nga ko ni nga ko gisee si tëj bi rek mhm. comme xale bi ñu doon dampa bi mu nekkee xaleel soo demee ba mag xam nga duñ la dampaati mhm. waaye yoga bi dina fa mel daf laa waat nga nekk ndaw mhm. because dégg naa ne musuma koo def na waaye according to nit ñi ak li ma gis léegi soo ko defee sa mind bi dina relax doo stressati because aduna bi bari na problème léegi everyday problème so yoga classes ku ko saxoo di jël rek di def rek yaakaar naa stress dina la daw. waaye yoga sax dafa dafa dafa baax si yaram awa. Mm-hmm. Eh, exercise si boppam moo baax si yaram que dafa tax sa deret bi mu daw dafa tax sa joint si tamit ñu free mm-hmm. comme laagi yaa ngi war a toog si biir office from eight o'clock si suba ba dema ko six o'clock yaa ngi type yi nam aate yaa ngi binda comme nag soo def ay exercise yu mel ni yoga ak yooyu noonu mun naa free sa yaram bi sa système bi yëpp dina mun a relax waaw ba bu ñu ko si yoga classe boobu rek léegi dañoo am ku ñoo invité invité comme ni ko gars yi waxee ku ñoo invite. Mm-hmm. kii nag moom euh, ku màcc la ku xarañ la si lu moo def euh, mu ngi fii di liggéeya ñun ci biir GRTS te suñ ne jamono ji rek suñ xel dina dem si kenn. Mm-hmm. mooy Mama Dieng mooy Mama Dieng mm-hmm. kon rek euh, dañ ko feddalal léegi léegi. Mama Dieng wax ñu lan la uba waaw. waa mbokk yi comme ni ñu leen ko waxee woon rek eh, tey moom kiñ dalal si suñ studio bi mooy eh, Mama J borom jamono ji ñu bàyyi ko rek mu nuy wante gars yi. waaw mbokk yi maa ngi leen di nuyu fii eh, di kontaan nag ci di ngeen ma invite tey ci mm-hmm. seen programme bi mm-hmm. di rafetlu programme bi lool. waaw maama jàmm nga fanaan. jàmm rek. waaw maama. si jamono ji ñu toll nii. ñu ngi wax ay indi ah, international women's day. Mm-hmm. Ah, international women day nag du daanaka du benn fan. Mm-hmm. dañ ni weer bi yëpp lañ ko jagleel jigéen ñi. Mm-hmm. te yow nga yëngu si jamono ji jamono ji nekk ah, programme boo xam ne umana yi fi jamono yi suñ ko seetloo bi ci gën a am solo bu a am si ñeex gi mooy ne. suma waaye suma xool nag moom mu loo xam ne jigéen ñi li ñoo jànkuwante seen néegi sëy ñoo seen goro yi ñoo seen jëkkër yi ñoo seen dikkandoor yi ɓuri bugalnga wax si international womens day bi jëmala ko sa programme jamano jërëjëf euh, ramu euh, kontant naa ci laajte boobu noonu waaye laata may dugga ci loolu rek dama bugg a fàttali nit ñi ne jamono ji programme la buy isi xew-xewi jamono kon euh, lépp lu xew rek ñun dañ ko dee isi si suñ programme bi ñu ñëw nag ci mbirum international women's day mm. man moo foo ne every day Ehm, bési jigéen yi la bés bu nekk rek bési jigéen yi la ndax nga xam ko xamuloo ko jigéen yaa ngay yëngu ci li nga xam ne moom lañ leen leen dee taanal pour mu nekk seen tiim maanaam seen boppi waxtaane kaay ehm, mu nekk nag lu am solo surtout nag ren tomb bi nga xam ne moom lañ taana day violence against women mm. and uh, ba pare national team bi mu nekk uh, economically empowering women economically mm. um, violence against women bi ñu ko waxee mooy fitna yi nga xam ne moom moo dee dal jigéen yi uh, si lii nga xam ne moom lañ dee yëngu pour naka mun a dundal seen bopp dundal seen i njaboot ak seen i famille euh, loolu nag daf dee bari si fànn bu nekk la. Mm. violence against women nit wax ko waxut ko nitaan koo dundee ci different ways. ñun ñëpp ku nekk fii nii am nañ violence yoo xam ne eh, ñu koo dundee muy si faro yi si mm-hmm. tool yi mm-hmm. ci garden yi ci marché yi ak si office yi ñoo liggéey nii sax am nañ violence yi nga xam ne moom la ñoo dundee waaye bés yu mel ni comme tey ñu jaglal ko jigéen ñu ñun ñu booloo toog wax seen problème foog naa am na lu bari lu mu dee wàññi si façon violence yooyu noonu. Mm-hmm. waaye bu ñëwee tamit si programme yi jamono ji. baat moom laa la bëggoon laaj sax mm-hmm. gis naa ne fànn na suma bi. ci jamono ji uh, um, lu am solo la ñu bari dañ ko dee xaar pour rek mun see jànga mun see dégg ay xibaar yu bari comme ñu si xol yi daal uh, uh, léegi bëgg nañ nga wax ñu ban impact la loolu am. ci société bi comme ndax léegi-léegi da nga dee mun gars yi lettres yi suñ ko ba pare dañ dee mun a am solutions or solve problems si ndax naka la waaw loolu am nañ si case yu bari awa mm. yoo xam ne nit yi dañu dee yónnee seen tawati xol yi parce que noonu lañ ko dee waxee seen tawati xol yi seen naxari xol yi mm. ah, ba after suñ ko riidee ba pare xam nga nañ lay dem def vox pop ah, ndax loolu moo dee tax sax nit ñi dee yónnee seen leer bi parce que rek xëj na suñ xalaat du doy waaye mbooloo ñu ne moo ëpp doole waaw mm. moo tax na dañ dee génn si biti ah, ci loolu nag tamit dañ si dee am problème de Gambian si pour nga dem defi vox pop fii sonn waaye nag yàlla daf ñu dee dimbalee liñ si nga xam ne lool lañ si nama dañ ko si dee mun a am yenn yi nag bari na nag waaye dinañ leen si jukkil rek som rek yoo xam ne loolu dina nekk loo xam ne nit yi dinañ xam ne stories yi nga xam ne moom lañ dee génne nekku ne luñ dee fabricate la real stories lañ hmm. yoo xam ne la nit yi ñu koo dundee gis nga fii am na lu bari lu nit yi dundee amuñ fuñ ko jooyee amuñ ko jooyee soo fii rek suma xool bi rek mooy seen mm. euh, solution bi nga xam ne foofu lañ foog ne foofu la seen aajo day mën a fas euh, fajoo si programme yii ni mm. euh, success story si waaw mm-hmm. mm, mun naa la seetal benn mm-hmm. comme jaaxam boobu noonu nga xam ne mun ne moom mu ngi seventeen years la am moom amagut sa eighteen yaayam papaam dañ gaañu mu am mu am magam boo xam ne kooku la dëkkal kooku moom nag mu ne unfortunately mënut a xam extended family because si magam bi la ba pare man xaw ma sax kooku ban façon yu mag la mag bi daal moom dafa dee iñaane si yu bari hmm. imagine xale bu nekk at that age 17 years man first time ma foogoon ne du dëgg waaye bu ma toppee story bi because bu ma ko waxee hmm. jël na three days maa ngi investigate story bi pour seet ndax lu ma wax dëgg la ndax du dëgg waaye su ma ko laajee rek the ma xam ne nag kii dëgg la lu moo dundee loolu la maa wax ne hmm. so mu ne magam bi euh, daf ko dee dugal na ko school bu mu duggee school yàlla def xelam bi neex waaye magam bi tam mu ngi am beneen doom boo xam ne moom tamit daf ko dugal school ñaar waaw ñu dugal leen school ñoom ñaar waaye kele moo dee raw moom rakaam bi moo dee raw hmm. mu gis ne tamit loolu xam naa xam neexu ko xëj na mu fiil si jalose hmm. yu noonu hmm. mu ne nag yow léegi fu mu nekk nii duma ma dee am ko maa dimbale si kër gi dama bëgg pour nga maa dimbale si eh, liggéey kër yi raxas bool ak ah, bale néeg ak yooyu noonu ba pare nga maa téye suma beneen mun a ko ne eh, suma doole li fi noonu munuma leen a fayal mm-hmm. yéen ñaar ñëpp pour ngeen demandoo school imaginable saraka mm-hmm. nga génne ko because of moom moo gën a neexal sa doom mm-hmm. mu nekk ci loolu xale bi tamit yàlla dimbale ko ndax façon yooyu yàlla daf leen dee faral a dimbale mu dimbale ko moom itamit muy leetantu di jàngantu yi nen métier yi sew ba fi mu nekk nii daf dee leeta leeta yu rafet sax ba pare dafa